daal dinay xam ne ne international basketteur sénégalais bi ñuy woowee Khoureychi Thiam moom dafa daal di décider ne bés bu ñu maintenir décision bi tukkee ci justice ne dañuy condamné Ousmane Sonko ngeen mu fay deux cent millions ki nga xam ne moom moo di Mame Mbaye Niang moom ci boppam il s'engage à payer cette somme pour que Ousmane Sonko mën a nekk ci jàmm dem bokk ji tranquillement ci élection présidentielle yu atum 2024 Khoureychi Thiam ñëpp xam nañu ko ab basketteur la bu mag boo xam ne ràññee nañ ko lool fii ci réewum Sénégal jël élection bu ñu sukkandikoo ci Abdou Sané ordinateur communal bu Pastef Ziguinchor ne dina fay deux cent millions yi nga xam ni Ousmane Sonko moom lañ teg ci ab ndoddam mu war ko jox kii di Mame Mbaye Niang nekk encore beneen firnde engagement bi nga xam ni sénégalais yi am nañ ko ci ginnaaw Ousmane Sonko waaye itam détermination ci bépp fànn ngir mën koo permettre ëllëg muy dégg président de la République du Sénégal AGT News